dañuy dooree li nga xamante ne mooy moo di euh, people bada euh, ci people nag buñ ko waxee nag muy divertissement waaye aussi ñuy xool li nga xam ne rek moo di l'actualité phare euh, sur la toile ci web lépp loo xamante ne rek actualité buzz la people moo tax nga daal di teg sa sa sa sa kii yàlla baax na mm-hmm. alors dañu koy door li nga xamante ne moo di ummi ak boss coowal ummi ak boss ça depuis longtemps mu nekk ñaari tiktokeur lañ leen mën a tuddee yoo xamante ne donc yàlla def na seen diggante say am ci macha allah leen di ñaanal bu baax waaye ñu nekk ñoo xamante ne xam ne H24 li nga xamante xamante moom moo di réseaux sociaux yi askanu Sénégal ñi di leen ŋaaññi ñi di leen xarab am ñu leen bëgg am ñu naan nañu liggéey yi ndax kee handicapé la waaye keneen ki aussi tamit moom boos tamit marchand ambulant la donc euh, version yi bari na ñii soit positif ñii négatif askan wi li ñuy laam-laamee rek mooy ndax dafa am ku nekk seen ginnaaw coow li coow li nag ñu waroon dem Italie ummi waroon def opération ndax defoon na opération mu échec ndam si yàlla Mamadou Yatassay lañ wax ni moo leen fas yéene woon yóbbu waaye gis nga suñu borom mu def ñu war a dem mu am problème visa wu ki nga xamante ne moom moo di boos Bada coow li encore une fois dellusiwaat na ba Ada moom mi ngi biir. waaw xam nga boos man ak jabar ji dama leen a yërëm. donte boos sax dafa ñàkk jom. mais man dama ne woon dootuma wax ci ñaar ñooñu parce que man dama ci sonn tàyyi ci parce que yow boos man mm-hmm. mënuma comprendre ni chaque jour nga jël. sa sa say mbir rek weer ko ci marché bi ba ku nekk di ci ŋawtu ŋawtee. Mm-hmm. mais lan mooy loolu. boos est-ce que moom lii ko jigéen di ah ma xam la. Mm-hmm. lan waxante dëgg li ñu nekk xale ñi may réseaux sociaux non mais mais mais quand am na mbir yoo xamante nii mhm. ah nit doo yàkkamti mhm. xale doo mhm. yàkkamti li nga war a am di nga ko am yàlla may na la ay vie may na nit ñi xam na la loolu doy na am na sa moroom yoo xam ne amuñu loolu amuñu ko kon santal yàlla dëgg la yàlla def na boos wayaan naa woyaan ba takk jabar ay 1000 francs ah ki 5000 ki 2000. ah bare tam marchand ambulant xam nga foofu sax moom am na ñu xaw a tane. non jàmbaar la am na ñu tane parce que am na ñoo xam te ne ba léegi amuñu soxna mais loolu sax war na cee sant yàlla. Mhm. mais boos na rek la may nit ñi jàmm may boppam jàmm may famille jàmm. Mhm. yërëm ñu bokk tuuti. parce que ñun sonn nan ak kaaw boos ah. Mhm. at mii 2024 bii sonn nan ci. Mhm, boos waaw tamit kenn rawu ko man xawma lan la ko boos war a ñamal ko waa dëgg-dëgg. voilà mais non non arrête ba ah. couple lañ dañuy sëy. jëkkër ak ah, jabar mais de. jëkkër mi nga xamante ne moom lu boos wax mu ne googa bu ne verte mu ne verte. bu ne ñeex mu ne ah. jàmm jëkkëram day sëy ah, ah. xam naa ne xam naa ne daal ah? ah lan laa gis est-ce que boos boos ndigg li baaxul nga yaakaar boos non non non attends rek non non si ankay noonu noonu waxtaan wax dëgg ca la boos damaa yaakaar ndigg li daa baax kat boos am na gàllaaj de yow ñu jox la 6 millions eh. daggal daggal la visa jox la li nga war a fajoo lépp nga war a dem. Hmm. boos na ko bul dem mu ne dem mu toog. léegi lan moo tax ay xale jigéen boo leen waxaloon dañuy dem ah. waaye lan moo tax damaa yaakaar ndigg lay dëgër rek. waaw léegi lan moo tax 6 millions yi luy problème bi. ah luy problème bi ci ci ci ci visa bi. ah boos kay moo ne moom bu jabar ji day dem moom day ànd ak moom. mais nee sinon bu bu mënta dem jabar ji day toog mu toog te jabar ji ummi moom loo wax mu ne lu boos wax loolu la. mais tey jii ummi bu demee tey a téye man looloo ma jaaxal. boos nu mu demee noonu dafa yor luy gaa yor wala. mbir daal xam nga lan laa ko gisee. ah man de jabar bi dëggal la ko wax dëgg man la mooy sama problème ba lan mooy sama problème ay satu ah, muy lan fii nañu yàlla baal waaye ñaata handicapé ñoom ñoo fi nekk bari na lu metti bari na waaw mm-hmm. ñaata handicapé monsieur waaw ñoom ñoo fi nekk loo xam ne tey di dundi mm-hmm. dund lu metti loo xam ne comme tii tey ñu amputé leen mm-hmm. amuñu benn moyen wala dara te tey ñu ngi koy dundu doo leen gis ci réseaux sociaux ñuy tàllal la ko di jaanaat lu leer doo leen gis ci réseaux sociaux ñuy tàlloo am na leen loo xam ne dafa ñaaw man rafetlu ma ko. benn xëy na ummi nit ñi xam nañ leen ay célébrité nit ñi xam nañ leen. Mhm. mais nu ñu taxawee ci réseaux sociaux ànd ak ki nga xam ne moom mooy boos. Mhm. boos góor la. Mhm. nay dem ci liggéey yi. mais boos mi mi ngi def marché non non dëgg na yenn yoo xam ne moom da cee war a génn ummi bu ba rekkoon ummi kase. boos dafa war a rocceeku ci mel ne parce que góor la. moom handicapé wul macha allah. ay loxoom ak tànkam yëpp a ngi marché. mais ki nga xam ne mooy soxnaam su ñu koy dimbali na génnee ci loolu gémmiñam wala dara ñu taxaw ñu dimbali ko mais yow mënoo dimbali di ñaanaatu ne sama jabar ñu faj ko tànk la bëgg nangam ak nangam ni ko aadamoo di waxee mais boo xoolee da nga naan lii muy wax dëgg la mhm. ñu ne déeta waaye ba sa jabar am visa ñaata nit ñoo fi feebar dem di faju ma visa mhm. ma foog ma am visa pour ànd ak sama jabar mhm. sa jabar bu neen foofu ci hôpital lay nekk am na ñu koy toppatoo am na ñu koy accueillir wala dara mais dafa am leen loo xam ne boos mais ngóor itam est-ce ne boos dafa bëgg a jàppale jabar ji wax nañ ko dëgg mais boos dafa am loo xam ne buñ lay may bul xaslu sa bopp boos dafa nekk nit koo xam ne dafa bëgg di xaslu boppam ci à chaque fois ci ay ñaanaatu sama jabar nangam ñaata handicapé ñoo fi nekk tey ñi ngi dox ak seen ngor te génnuñu ci mbedd mi yalwaan mhm. tooguñu ci internet yalwaan tàllaluñu kenn loxo mhm. ñi ngi góor góorlu di liggéeyal seen bopp mhm. ñu ngi góor góorgóoru di gëjug ak daanu ba yàlla suñu borom indil leen xéwal mhm. du dëgg mën na génn wax soxlaa mais boos ni muy affiché woo ci affaire ummi ci affaire xaalis ci affaire internet mhm. dafa dafa nekk loo xam ne dafa ñaaw day bu yàggee nag euh, tous les noms d'oiseaux yi ñu moo ko teg seen bopp mais dafa dafa mel ne nii ne bada dañoo ubbi su ma jumul benn salon parce que maa ngi gis ummi di def ay make up di def ay pédicure manucure donc boos mi ngi ne léegi dañuy bàyyi lépp seen ginnaaw ñu amal seen bopp utal seen bopp comme wone li mu doon wax léegi na euh, bërëb boobee nga xam ne ñu ngi fa ku fa ñëwaat di nga gis coppite parce que Mamadou Yatassay ndam si yàlla si moo nekkoon seen ginnaaw di leen jàppale c'est que dem na mu mel ne ñoom ñaar ñu ngi taxaw ci beneen structure pour pour pour boos moom ku nekk koy jàppale pour liggéey ndax wayaankat la ku nekk koy jàppale boos dina jël xaalisu bënga maan bi boos dina jël xaalisu jaaykatu carotte jaaykatu suppame jaaykatu puus puus bi caga ji sax dan dan koy jox déet waay ba ci jigéen ñi gisoo Pambaay Pambaay sax nee na na di mais boos xaalis bu la lay lekk. boo lekk lii bu ko lekkee bu ko bu ko jigéen man dina ma jaaxal. mu xam ne boos man mbër la. bu ne ba ba Pape Mbaye Mbaye ah góor jigéen bu bon boobu nga xam ne bañ nañ ko ba koo génne Sénégal mënatul teg tànkam Sénégal États-Unis mooy Sénégal bañ na ko ba dafa jënd bàmmeel jënd na bàmmeel biir États-Unis parce que xam na ne bu deewee ñoom tubaab yi dañ lay lakk def la dóom bu ñu paree def la ci ci benn pot dugal la denc la day fay bàmmeelam chaque weer ñooñu sax boos mu ngi leen di collecté xaalis moos doon nekk nit nag. mais les 6 millions yi Bada. ah 6 millions yi dégg naa ba mu ko joxee tubaab ba pour war ci jël visa be ak frais yeeg yooyu. Mhm. te moom comme amagul visa. récupéré waat na 6 million yi. guddi ga nga ko récupéré dégg naa dibi la reeree <laughs> eh. dibi dibi la boos reeree guddi bi dibi la reeree dibi mais dibi du frais. waaw xaalis boobu xaalis boobu. dibi mu bu lekkee division bi dama lekk vendredi lekk samedi lekk. nga mooy li ma wax sànq rek. tey ji bu doon affaire ubbi affaire ummi ñor na baax na kon boos waru woon la boosa solo ko suñu de bada ku maîtriser xaalis boos changé na de bu tojee baax na boosa ngi commencé changé de mi ngi commencé belli de boo ci roccee baax na rek day ko xam en tout cas dafa mel ne ubbi nañ ubbi nañ xaw ma salon la xaw ma mais dina gën a yaatu on aura l'occasion incha allah contacter leen bu ko defee incha allah rabbi ñu xool ñoom ci ci lan lañ nekk seen tolluwaay et tout parce que itam doon nañ ñoo xamante ne nit ñi ñi ngi leen bàyyi xel comme li Ngoné wax Sénégal léegi koo ne boos ak ummi xam nañ leen à travers réseaux sociaux yi encore une fois ñu leen di ñaanal rek seen sëy bi man comme j'ai l'habitude de dire ay xale dañuy sëy nañu moytu réseaux sociaux mm-hmm. ndaxte sëy ak réseaux sociaux ànd mun nga jaay nag ci réseaux sociaux mais sa vie privée bu ñu koy faral di exposer moo tax saa su nekk nit ñi dañuy duggaat seen vie mais yal na leen yàlla defal jàmm bu baax a baax a baax bada dañu ñëw ci l'affaire ki nga xamante moo di jëf jël mm-hmm. ba jëf jël dugg ci émission bi xam naa ne dafa xaw a xat ak euh, timing beeg mm-hmm. yooyu suñuy horaire looloo tax jotuñu ko tey demoon nañ fële nangu yoon demoon nañ justice mhm. mu mel ni rek ki nga xamante ne moom moo di euh, euh, euh, Malick Naar dafa sàkkuwaat ñu renvoyé bile mbir ne nañ jëf jël amul preuve Malick Naar dafa génn di di ko di ko di ko toj naan kii kan la borom xaalis bi fan nga toj mu mel ne daal version amaat na ci bile mbir waaw xam nga lu dul dëgg àdduna du yàgg te tuuma fi nañ koy fi nañ koy fekk fi nañ koy bàyyi mhm. Ousmane Sonko ngi nii tuumaal nañ ko ay ati at mhm. ba tëj ko ci kaso dëgg la kon ma sama jëkkëru Amina Poté Masama ak tamit Amina Poté ndax nga wax dëgg yàlla. am